certificat de mariage bi ak sama bulletin de naissance doom man ne damay dem Tëngéej pour def demande ma dem ci côté boutique ba gis naa ne sama topp na ma maa ngi ko gis dafa mel ni mel ni ku lay bàyyi ne demal topp ma ba ci suuf noonu ba ci mbedd bi mbedd bu mag bi man gis naa ko mais faalewu ma ko mais xaw ma woon lan la intention lan la ma jël oto dem bi ma tëni ba tënk ba war a yegg ba wàcc ci taxi bi ba war a yegg ci buntu tribunal sama nijaay woo ma téléphone mu ne ma Souadou de lan moo xew sa kër ma ne ko lan moo xew sa kër mu ne ma Souadou sama nijaay ne ma Souadou dóor na meer bi mu ne ne ko léegi laa génn kër ma loolu la amee dellu ma delluwaat dugguma buntu tribunal ba léegi ma delluwaat ak taxe bi ma dellu ñëw kër ga fekk coow li bëri ci koñ bi fekk ma dem dugg fa maire de moo ma def ne ko nga ne ma ko def fekk ko ci woo ma ne ko Souadou li nga def ñaaw na te dama lay wax dëgg tey di nga doo fi fanaan tey ci kër gi doo fi fanaan lu ma ci xuloon du ma ci xeex ne tey doo fanaan ma jox noonu dem jël oto dem dugaar dëkkam toog ak ma toog ak nijaay toog ak baayam ki ko maye woon ak maamam ma wax leen ne kii dama bëgg mu ñibbisi bu ñibbisee ba pare nag ma réglé problème ba pare dina xam ni may def ñëw bi ma ñibbisee man ko am cinq mille ngi ni dama ñibbisi jëlal sa bagage nga dem toog jëlul bagage dem bàyyi ko fa faalewu ma ko xoolu ko dégguma ko un mois yaayam woo ma dafa doon xuloo ci seen kër ko li def dóor na yaayam bi ko jur yaayam bi ko jur sa dóor na ko dem foofu dóor yaayam rakkam yi jàpp ko rakkam yi koy taxawu tey tey tey ñu koy taxawu tey ñoo ko door boobu ñu bisi na ur fii mu doori yaayam dóor yaayam ba ñoom ñuy fanaan ci waañ bi moom ak sama doom jëkkër xeex ak magam xeex bu ñoom it magam bi dem kër jëkkëram toog fa léegi moom mu nekk foofu ak yaay ji dóor yaay ji xal rakkam yu góor yi dóor ko di ko fanaan lu ci waañ bi ak doomam ma ne la may naa la sa baat jëlal sa bagaas nga dem ca la ñëw nag suñu rajee toj wii yëpp def li muy def bloqué naa ko waxatuma ak moom ma ko dafa fekk maire bi xam naa maire mu ngi toog ci saal bi tuur ko ndox ko tuure ndox loolu doy ko comme maire bi day yuuxu baata amatul baat léegi mu diri ko diri ko yóbbu ko ca fond bi ci néeg bi ci fond bi foofu ci wanaam bi fond bi foofu ci ko néegu maire bi la defee li mu war a def dëgg rek laa lay wax de liñ ma wax exactement liñ ma expliqué jour enterrement bi noonu mu ne ma vraiment mën maa gisal sama bopp sa yaay te yaay yaram bi yëpp yàqu na ndax ndox mu tàng ba pare dafa rendi sa yaay